Assalamualaikum Senegal Senegal yi fo len tollu ci xarnu bi rek xarim Gueye fekk na la fa nga jox la bi waaw te di len fatti rek raxasum loxo yi hmm, maski yi ndax baxul senegal wañi ku na fa lol yàlla na wàññiku gën a yokk te ñun ñi fii demoon nañ bay naagu ndax kaa yi dañoo wàññeeku woon wàññeekoon gis nga temps yi leen ko fiy liiral li ngeen doon déggee ay huit cent morts six cent sept cent demoon nañ ba réduire ko presque à zéro deuxième vague bi xëy rek na cëpp ci réew mi ba ñooñu nii dañ confiné waat Italie ñu diviser ko ci ñetti couleur ñetti zone yu jaune ya orange ak rouge waaw yi nga xam ne fii ma nekk ci Lombardie ci lañ bokk. mënatuñoo génn booy génn da ngay am autorisation pour nga mën a génn dem liggéey bu ñu la taxawalee police walla dara da ngay wone kayit boobu moo lay permettre que ñu bañ la bindal contravention sinon de quatre cent euros jusqu'à mille euros da ko fay voilà zone yu jaune yeeg yooyu mooy yi nga xam ne bariwu fa noonu ñooñu mun nañ circuler nu mu leen neexee mais am na ay heure yoo xam ne si baar yi restaurant yi ci la ñuy ubbi six heures du matin ba non cinq heures du matin ba euh, dix huit heures dañ war a tëj ok li waral loolu mooy demoon nañ ba naagu voilà loolu tax ma ne Sénégal yàlla na gën a wàññiku yàlla na dem ba zéro mais bu leen naagu bu leen ne affaire yi wàññiku ko rek raxatuñ loxo yi takkatuñ maski chose baye len ci xel waaw solo trop waaw bala li ñu dal di len dalat tay nak del siwaat nañ ci dimanche bi wara waxtan ak yeen touti ci quelques um bu njëkk bi ben lay nek ci gaay nga xamni si actuellement ñoo ngi voyager jóge ci fi ci diaspora bi di jëm Sénégal xam nga ci semaine yee wax naa leen fi benn communiqué boo xam mu ngi jóge ci ambassade ba jóge ci ministère des affaires étrangères bu Sénégal ñoom ñu jot ko ñun ñu distribuer ko que dañuy laajte test euh, TCPR boobu RTTCPR bi ñuy prétendre pour que nga mun a embarquer boo wàccee Sénégal aussi dañ la koy laaj c'est obligatoire sinon daañ la dugalaat ci compagnie aérienne bi delloo si la waat ci réew mu nga jóge woon ok def naa loolu leer na ci nopp yu bare ñu bare tam vérifié nañ ko ñi mujj dem voyager gis nañ loolu ah, leneen li ñu leen waxoon mooy autorisation d'embarquement boobu nga doon am nga xam ne consulat général bi ñoom ñoo la koy defar walla ambassade ba ok loolu tam dañu c'est obligatoire mais ñu bare dañ ko defar man mii am na ñoo xam ne si dama leen booleek ñee ñu defaral leen ko yónnee leen ko parce que laaj ñu si dërëm laaj ñu si timbre laaj ñu si dara lu dul euh, li nga xam ne si mooy emailu ambassade ba wala bu consulat ba wala nga am woote fa wala nga dem fa yóbbu sa billet boobu sa photocopie passeport ñu defar la autorisation boobu alors il se trouvait que ñu bare defar nañ ko dem ba dakaar kenn laaju leen ko ñu départ kenn laaju leen ko alors man mi am ñu mu ci bil nan ma da ngay fen ak yu kenn xamul man bëgg leen xamal ne fen du mu ci fekk waaw man dama leen di bax yeen information yi rek te duma leen wax lenn lo xamne joge wul ci ambassade be ak ci man mii waaw ñom ci Dakar ge lay joge ñu jox leen ko ñu distribuer ko muy leer ndax yenn problème ngeen bañ ko am pour yombal leen seen voyage bu ne li laaj nañ ko man duñ mako waxe damay ñew mu wax leen ko te lañ ma lama leen wax dañ ko bind kayit boo xam ne si bu ambasade ba la ambassadeur bi signé ko donc lu ma ciy fen ak lu ma ciy kàcc amul àdduna lu yàgg bu ma toog bi fenal état di inventé loo xam ne si ah, daañ leen ko laaj te du dëgg ok bi ma wootee bi ñu bare demee laaj ñu leen ko ma woote fa laajte la pourquoi dañ moo xamal que ne du compagnie yépp ñoo koy laaj autorisation bob. li nga xam mom c'est général amul compagnie bu meuna doon ci aduna bu wacc Sénégal RT TCPR boobu moom da nga koy andi mais autorisation bi selon compagnie bi ngay jël duñ la ko laaj lu mel Air France mom dañ la koy laaj par exemple loolu lañ wax par force bo démé sen site Air France sax di ko fekk autorisation bu ko am ko pour ñu mën la embarquer ci avion bob. yeneen compagnie mun nga dem duñu la ko laaj comme ñii fa jaar fan yii te kenn laaju leen ko loolu donc lu waroon gën a leer la que ne du compagnie yëpp donc képp koo xam yaa ngi dem di jënd sa billet laajal compagnie boobu est-ce que am nga nécessité am autorisation d'embarquement boobu su fekkee ne ñoom dañ koy laaj nga woote ci ambassade ba wala consulat ba ñu defaral la ko laaj ñu la ci dara yónnee la ko ok loolu def naa ne leer na koo xam ne sii teg réellement amu ci njariñ li wutal euh, test bi nga xam moom c'est obligatoire amul nga fay dugg doo jaar fenn te doo ko wane Sénégal loolu dama buggoon mu leer ok buñ ñu jógee ci loolu euh, ma ñëw tuuti ci euh, politiciens yi nga xam ne waroon naa ci wax fan yi parce que damay toog di seetaan yenn vidéo yi di gis ay politiciens yoo xam ne dañoo àndoon démb. Hmm? Euh, ak barki qui doon contesté fii ñoo si vraiment ñoom ñooy ànd ak nit ki ba ñaawlu loolu bu mu gis ñoom ñuy def la même chose tey ndax ñoo àndoon ki nga son excellence le président Macky Sall euh, u dàq nañ leen wala génne nañ leen ca parti ba wa ilaa nangu nañu seen post ministre affaire yu demee noonu ñu génn nekk ci tele yi ci réseaux sociaux yi fu nekk di yàq deru euh, président bi lu nañu koy wax vraiment muy lu lu salte parce que mun naa nangu opposition bi sax di wax ci ci ci ci pouvoir bi euh, ñu d'accord mais koo xam ne si yow yaa sosandoo parti APR boobu ak Macky yaa ànd ak Macky Sall am na ci ministre yoo xam ne si euh, ku mel ne Moussa Diop bi ngeen DG dakaar dem dikk bi gis ngeen ko lu mat juróom-benni at nekk DG ah Macky jële ko France indi ko défendre nag Macky côté bu nekk ñu soulever ko ci ci post boobu rek nga gis commencé na moom tamit dem ci tele yeeg euh, plateau yi di yàq dara quoi waaw liggéeyam rafetul ni mu yore réew mi rafetul te yow nga ànd ak moom juróom-benni at yaa ngi koy doog a bi ñu la daaxee waxu waxuma la kooku man ki mu ci gën a soof sincèrement parler te war ngeen ko seetlu mooy Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté lu défendrul Macky Sall bi am na ba bi Macky Sall yi falu moom mu nekkoon directeur de cabinet ab Ablaye Wade daawul jaar ci suuf bi Macky amaa Macky di démissionné ci lépp dox na ko parce que boobu xam na ne Macky Sall mi war na fi mën a toog mu mi ngi liggéey ak Ablaye Wade ba pare jaar ci suuf di tracé ba ànd ak Macky ba feeg mi ngi doon ànd ak Macky Sall déggu leen ko mu wax lu ñaaw ci président bi ànd ak nit ki nag ngeen sosandoo demandoo yow tu n'es pas tu n'étais pas son opposant doo Ousmane Sonko doo keneen kooku lu ñu mën a wax mën nañ ne sa entre dans le cadre de la politique quoi waaw li ci mooy mooy langage politique loolu day am ci politique mën nañ waxante lu nekk waaw nii Idrissa Seck àndee tey ak Macky dégg ngeen lu ne ci moom mais il était de l'autre côté quoi. nekkuñu woon ci APR ñoom ñëpp ah loolu mu koy woowee li ma gën a naqari tey mu ngi naan koo wax ba ci sa mii mu ngi naan Macky Sall da ko doon sompal ak da koy sompal waaw un politicien boo xam ne depuis 76 ba léegi nguur gu ne jaar na fa waaw ku àndal ba mu neex ko ëllëg mu ñëw di yàq sa dara.

ku melne yow Macky Sall bu ma doon moom moo lay rendi gannaaw langage boobu nga utiliser comme langage Sonko yooyu ay fusileeg ay rendeeg yooyu ngeen di xam hmm? te barki demb yaa doon toog ci plateau yi fii hmm? défendre Macky Sall ba ci troisième mandat la cour constitutionnelle lan la ci wax dem leen ngeen déglu vidéo yi lan la wax foofu ah moom moo doon toog fii di wax ne mënul concevoir nit ki ànd ak nit ki ba xëy ñu bàyyante mu wër di yàq darab loolu mu doon bañ moom mu ngi koy def tey mu Moustapha Diakhaté mom dam leen ngeen déglu ay vidéo Moustapha Diakhaté dañ lay fatali que ne vidéo yi nga doon def avant ma nga nekké APR ñoo ngi fii loo doon défendre Macky Sall lo doon wax lepp mu ngi fi tay ji biñ la dàqee ci ngay doog a wax ay sompalu Macky Sall kuñ wax mu ne daf lay sompal donc kuñ sompal rek mu mo xam kan moy sompalé mais ba sa bañ la tout dal légui yow sa problème moy idée ku dem ci Macky Sall ah ñong koy sompal. Macky Sall yàgg naa sompal idi xaw ma trente millions par weer la ko doon jox xaw ma toutes ces choses là ay affaires yoo xam ne mënuñ si teel ay preuve fii ñëw duñu ko gëmloo ndax takkal nañ koy bagage ab ca biti dem koo xam ne 76 laa lay wax ba léegi mu ngi foofu ci politiciens yi ànd ak ñoom di nax sénégalais yi waaw tey jii génn na dàq nañ ko APR ma ngay dajale ñuy dakk ñep di wut parti bu bes da ngeen gis bala yàgg da lay ñew fi ne présenter sagaru parti nan leen ñom ñoy ñu bes di ñom ñoy ñi soppi Sénégal voilà limi and ak Macky Sall yep avant mu koy dàq eskay rek eskay rek eskay rek xana dañ loon sompal ko hmm? tay ji muy den won Macky Sall mo fi yes nu muy yore mi baaxul sujet bo wax xalé yi di voyager coronavirus beeg du n'importe quoi lu Macky Sall def lu baax lépp waa ji mi ngi ciy xëpp suuf tey ndax xol bu tàng ku dend ak Macky Sall iñaan na parce que moom dootul sax politique mais lii iñaan laa koy woowee quoi da ngay gis méchanceté lay waxee waaw yum dox ca suuf ñëw di li ay anecdote ministre bii nga xam ne si moom tamit euh, ci baadoole yi la bokk muy Thierno Alassane Sall mi ba mi démissioné xawma gis nga mom mi euh, Moustapha Diakhaté néna mo jaar fee xaw ma ak première dame invité ma reer dug na fi génn ma ak mom ma taal sama auto ju goudi ñu dem dox ko pour jubale dug na fi génn mom yoy daf ko tam daf ci yàgg voilà Alassane Sall mi mom tamit nekkoon ex ministre Macky Sall ñu takal la say bagage vidéo yi ngeen non def gaay da fi YouTube bi mo ngi fi de fekk cent ans lu ngeen fi waxoon mën nañ ko loxati tegal leen ko tey duma leen tegal ay vidéo mais prochainement danaa leen tegal kenn ku ci nekk ñii lan la doon wax démb bi mu ànd ak Macky Sall avant ñu koy dàq waa du may apprécier ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye xam nga ay Mimi Touré doo leen dégg ñu génn ñëw fi di yàq dara nit yi ñooy nekk naan Macky Sall daf leen dàq ak dàqu leen ak dañu démissionné dugg na fi génn mais muut waaw Ni rek ñoy wër plateau ak plateau amuñu benn xalaat ci Sénégal luy soppi Sénégal do fi gis kenn ku toog ne la lii mooy solution ah, ah, booy yi di jël ci gaal yi lii la Macky waroon def wala nañ ko conseiller lii doo dégg lool de non lu yàq dara rek di ko jaxase ak peuple bi seen mer yooyu ñu yor ah lañ doon lekk lekkatuñ ko tax ñu ñëw ne dañ ci xëpp suuf laa la wax ci ndab voilà Thierno Alassane Sall mi moo fi doon défendre Alioune Sall ci affaire pétrole timbi dégg ko fi voilà ne lépp c'est régulaire lépp nice kërëb kërëb bërkaatu dem bind fi sagar livre am hmm? ñëw di accuser ay ay Alioune Sall ak ay Macky Sall du n'importe quoi mais la cohérence ak seen seen seen éthique fan lañ ko tek quoi hmm ko xamné feeng mu ngi neex dal bu doon yàq Sénégal sax nga ne ok yaag moom a ànd te xamoo ne yow buñ ko doon àtte tey yaag moom yéen a yam àtte yéen ban crédibilité ngeen am ba taxaw ci kanamu nit ci doon ñu wax lii bis jusqu'à bërki démb tey ngeen ñëw di wax le contraire ah ci li ngeen mës wax lépp ci àdduna te sénégalais dañ leen war a gëm yéen a tax ñu mel ne yéen hmm? ñoo tax sénégalais yi gëmatuñ politique voilà ban politicien lañ mën a gëm bu dee yéen ñii yéenay politiciens yi hmm? ñaata at ngeen nekk fa kuy neex buy tooy daal nga am nit ki bis boo juumee bañ dàq la. nga nek noonam léegi doto adversaire politique mais non ngay nek di inventer di sos di yak der te buñ len confronter li nga don wax démb ak barki dem war ngeen xamne ne bu net pas digne wa yow xawmu ma nu mu leen sax meuna a définir quoi hein ñu ñew mu naan ñu ñëw bes ni dajale dak ñi kaj ñep hein bala yag la la wax dama len koy répéter da ngeen fi gis mu génneen len fi sagaru en partie Moustapha jaxati ni waaw Sonko mais mu doon xas ak bas bërkaal dem raay raayal ñoom ñëpp pour àndandoo ndax seen haine bu ñu am envers le président Macky Sall mais Macky Sall mënul leen ko xaala wala kasiran kooku dafa war a leer waaw bis bu ne mu won leen ne moom politicien la mais yéen ay sagaru politicien ngeen voilà Thierno Alassane bii bërki démb livre bi kan la jël Ousmane Sonko ñu ànd l'autre la menteur la keneen ki nga xam mooy dàq jëkk ndax sénégalais yi

10 millions yo xamné si en euh, euh, Karim Wade jox nako ko Karim Wade mo taxone fi ne duko décrocher téléphone parce que ci doomu système bi la quoi comme num mu fatalé baye Karim Wade bëgg ko fatalé politiciens yi fa jaaroon yépp dem na ci bayu Karim woo pour mu japp la ko xam na koku ay waxam jartu duma sa doom Karim Wade duma ko décrocher wona ma ba tay xamna mom la net parce que ñoyam Karim Wade jël 10 millions jox lako Ousmane laaj na la répondre ci question Bob Ousmane Sonko do len ko a millions ci affaire Ndengler bi do len deg, Ousmane Sonko wax ci mook Jomaay Diouf do len ko deg ñi ñoy politiciens yi yu yi ñi ñoy ñi nga xam ñoo te li ñuy def ci ay sous-marin vrai est-ce que xam ne Sonko bi mu jógee Macky Sall recevoir na ko fi affaire coronavirus bu mu fi génnee gis ngeen benn idée bu mu jox Macky Sall su Macky utiliser woon idée bi coronavirus bi du wàññeekoo noonu Sénégal duñ jël mesures yu rigides yi ma leen wax sànq TCRTTCPR boobu ah buñ dul woon euh, décision yooyu président jël te jëlewu ko ci ay Ousmane Sonko. ñu wara nek ci moment bo xamné Italie bi sax néna fi gënoon nek ay non politiquement dañoo avons parce que il faut amna moment à xam bu fa rew tolo dañoo division politique yi dañ ko de gauche à droite. nous Alba ba ba résoudre problème rew mi ñu wat kenn ku ne sa position mais lum def dem affaire chacal di der. Nous amul propos bu mu fa def te loolu ba mu weesoo mën nañ la la ci la ko recevoir xam nga weddi woon na fi ne moom moo demandé woon audience ak ak Mansour Faye ne Mansour Faye ñëw ci moom di ko saraxu bay raam yow dinaa la soxla yow ba pare di prétendre yow mi ma soxla nga ñëw di sukk sama kanam pour ma wax la sama soxla xam nga ne koo xel nangu ko kooku mooy Sonko dafa ne ne moom mbëtt xam nga lu ma doon koo du ma ko décriroon si benn vidéo mbëtt la bu bopp bi làqatoo rek dafa na ne yaram bi yëpp làqatu na voilà mom day ñëw di accuser day ñëw di dénoncer té buñ ko dénoncer ben affaire du la génneel ben preuve ci limi dénoncer té boko poser ay question fi mu ne pat néna la tout récemment yàggul un homme d'affaires oo nako wo woo Macky Sall parce que ku mu wax ak mom té lu Sonko du génn di lan wax yoy té du ko weddi na génn mu wéddi lool tamit comme ni mu weddee woon audience ba du ko mësa daf voilà ñi ñoy politiciens yo xamné ñoy ñooy naan lé ñoo gën Macky Sall lu ñu yàq ko ci Macky Sall hmm? ta la Macky Sall yi def ak neew buñ fa nekkon ñom zéro temps yi nga xamne boy yi ñu ngi jël gal yi ah nga wara a am sa ay solution indi ko nit ki mën na mën na ko président sax wala état bi ñu ne ah sa way ke li proposer mais vraiment buñ ko appliquer won dana nice quoi mais duñ def lolu dañuy dem di xamb taal bi jël fot yépp tek ko ci président bi mo joxul xalé yi li def na li daf leen wara jox liggéey ñoom ñepp dug na fi lo xamne bu ron ñoom xamuñu sax wan yoon lañuy aw ban état nga gis mu ñëw ubbi ay usine naan ñëw jëlal ma xale yi jëlal yi état kay li mu mën mooy nit ñi investir nañ euh, mu wàññi leen taxes yi day créer ay situation yu favorable yoo xam ne si ñiy employé ñiy jël ay employé daañ ci sawar pour mën a gën a jël xale yi affaire demee noonu wàññi leen taxes yi wa ilaa ñu defal leen ay ay financement yoo xam ne si ñoom daañ mën a taxawal usine boobu gën ko Euh, yaatal ba mu mën cee jël xale yu baree baree bare muy ci secteur yépp mais ban état ci àdduna nga gis boo xam ne si day ubbi fabrique bi dem di recruter boppam wa ilaa benn xale jóge fee amul benn garantie amul dara nga jël ay millions jox ko mais bu nga teg ko fan nan lañ koy garanté banque sax boo fa demee di bëgg 10 million da ngay am loo garantie ok Je yi fa nous ay structure yo xamné créé lu DER DER c'est jox ba millions mais nous, tax yi duñ dem ñu informé wu am parents sax ñu leen nous garantir wala nu mu nu nous hmm? bañ utiliser fonds hmm? ñi nga xam ne c'est le secteur privé nañ ubbi ñu ñëw ñi nga xam ne am na yenn expérience am nañu métier nga jël leen jàppale leen ñoom tamit il faut kenn ku ne jàpp ci côté bii pour que mu mën a dem bu kenn xeet jël naa ñaari xale bu ñetti xale juróom cent dugg na fi génn waaw mbay mii nga xam ne dañuy jóge Sénégal ñoo ma fii jël gaal yi risque seen vie dem ca àll bay dagg tamaate te xale boo ci wax Sénégal ñëwal nga bay mu bañ duñ ko def ña àll ba sax bàyyi nañ fi seen toolu maam yo tout récemment vingt njaambur njaambur ajoor bu mel ne man yoo xam ne dee nga maam brique sax leen dàq fay vingt xale ñoo deewandoo ci benn village seen yaay yi ñoo jaay seen ay takkaay jox leen ko ñu jël gaal yooyu dee ñooñu bu ñu duggee ci gaal mool yi sax pour ñu rëcc am na distance boo xam mënuñu ko fayal pour ñëwaat ah nga jël koo xam ne brique moo ko dàq fay nga dugal ko ci gaal yooyu fan la jëm day de buñ duggee ci ndox mi rek neer nañ dee nañ man mii benn yoon laa mos a jël bateau fii. ne bu doon na gaal moo may indi Europe du ma fi mës a teg tànk jamais de la vie bateau yu normal yu ponkal yii mais tellement damay munu dama koy souffrir bi bateau bi départ laa commencé neer wàccu laa fanaane ci bateau yoo xam ne dafa yor ay ay cabine da ngay tëdd nelaw ba yow confort yépp ngi ci biir mais waxuma laa nag gaal bu simple goo xam ne si ak vague yooyu nga jóge ca àll bee xam nga ne kooku doo sori balaa kii nga dee da nga wàcc lu xonq lu vert ak lu ne bañ sànni la ci géej gi yow nga xam ne lii yow yaa ngi dem di rencontrer sa moor mais alalu àdduna est-ce que jar na loolu sa nday jeeg sa baay bee sacrifié wu ba nga am vingt ans nga xëy mu wóor na la yow làqatuma wala ñoom ñoo la ci jàppale sax ndax wut lu baax ci ñoom au lieu ñu waaye yow ñaax la génnee la ca nga dem dee loo leen di jariñati zéro boo doon ne ca Sénégal gee mën a lijjanti téeméer boo ñëw jox sa yaay wala sa baay moo gën zéro parce que boo demee fa ñàkk nga sa bakkan perte sa jabar perte na say dom perte nañ sa perte na sa bay perte na au nom de quoi au lieu politicien sagaru politicien yi ñëw di wax ci yoyu ah dañuy ñëw rek simplifier ko dégg naa ci benen ku ñu wax Abdoul Mbaye ex premier ministre plateau télévision lan mo ci solution non am na ñoo xam ne réew yoo xam ne dañuy soxla mën nañ créer ay convention yoo xam ne buñ soxlaa liggéey yooyu dañuy ñëw jël six mois après nga dellusiwaat ci réew mi dugg xoolal simplification boobu procédure boo xam ne buñ ko doon taxawal tey te ça existe déjà ñaata temps la mais te bu ñu toogee ci plateau bi am na xale yoo xam ñu ngi jël gaal gi instant boobu kooku loolu moom mooy solution. ban réew fii ñu ñu ñu ñu blindé mënuñu génn ñun ñu am liggéey nga xam ne depuis des années et des années on a souffert ici dem ba dégg làkk bëgg am ay kii tout finalement ñu doog am benn liggéey am na ñoo xam ne ba léegi vingt ans ñoo ngi fi amuñu liggéey bu fixe dara lu ñu yoree seen kër Sénégal amuñu ko moo tax ñu taxaw naan liy tabax Sénégal mu ngi Europe waxuñu dëgg tey waxuñu ko suba leen Youssou Ndour wax bërki dem du ñàkk tedd fii moo lay teddal fee déedéet yàlla bu lay jox bu nekkee fi dina la ko jox boo ñëwee Europe mën na la ko xañ lu mu la doon li nga doon am Sénégal mën nga ñëw ba fii ay nit jóge nañ fee lañ fa bàyyeeku si néew fekk ñu fii ceer ba amuñu ko fi ba léegi te li may wax du ñu ay fen voilà donc nekkul ne ku jël rek Europe ba nga bëgg a jàppe ne boo jëlee sa gaal ak si nga le bu yow nice ga demewul noonu de non am na ñoo xam ne teraanga bañ amoon Sénégal amuñu ko fii tey ji bu ñu amoon paas bu leen delloo Sénégal laa la wax ah rëcc nañ lu ñu doon jële ay gaal ci la ñuy doog réfléchir mais li mu doon risque sama vie yëpp lii laa fi doon fekk ah daggum tamaate googu ma lay wax bërki démb dégg naa benn booy fi mu naan man ay journée deux mille bëgguma ko ay journée mille cinq cent dangaa sonnul am na ñu ne Italie bi nekk ci Europe bi amuñu journée mille cinq cent amuñu ko un euro cinquante par jour amuñu ko voilà donc yow nga defa ne da ñëw rek gis étage yeeg 4 x yi damay daan daat koy am quoi li ma amoon ku si néew bu ma doon am deux cent mille par weer Sénégal sax bëgguma ko dama bëgg am un million deux million par weer <laughs> c'est pas facile de li ñu leen di gëmloo gars yi ñëw fi di leen gondi ci yenn bagages yi xamuleen leen lu mu tamit waaw ñu ci bare seen étage yooyu seen 4x4 yi xamoo nañ ko amee waxuma ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ne dañ ko amee billaahi du du ameen ba gën ba du ñëpp am ñoo xam ne honnêtement yàlla da leen uppil ñu def ko am na ñoo xam yu bon la ñuy def bala nga koy xam ñëwul ci kaso yi nekk fii waxuñu la ko demal ci kaso bu nekk ñaata sénégalais lañ fa tëj da ngay ñëw dugg ci gaal yooyu amoo kayit yoroo palto yoroo place amoo benn métier xam nga ñëw mujj ci mbedd mi criminalité bi la mafia la ñoo lay recruter par force parce que sonn nga di la jaayloo ay drop bu ñu la jàppee xamuñu la yow yaay tëdd ci kaso ba am na xale yoo xam ne boo demee kaso fii dafa fees dell ak ay boy sénégalais yépp ci gaal yi voilà wala ñii dem nañ ba ñàkk tax ñuy agressé di violer ay nit loolu yëpp ñoo ngi koy gis fii pourquoi duñ leen raconter loolu liñ leen di netti rek mooy ah dañ leen war a jox liggéey sinon da ngay dem par force dugg na fii génn état bu yeewu ne la danaa yeewu booy yëpp naa leen jox liggéey amul fii douze pour cent de désoccupation ñoom fii italien yu fi juddoo yaroo fii italien laa lay wax amuñu palto amuñu place bu ñu añee duñu reer waaw condition yu bare yu senegal yi am ñoom amuñu ko te pourtant ñu ngi seen réew pourtant mënoon nañ ne fii Europe la xale yëpp dañu war a am jot noo demewul noonu il faut nag ñu leen di nett leen wax de l'autre côté lan ngeen di fekk si Europe man de l'a laa décidé di leen ko wax ñi leen di xam naan ah amul nan lay def il faut mu dem il faut mu la bu dee dee moo leen gënal kooku xarul nga ak ñàkk gëm yàlla parce que boo gëmee yàlla da nga xam se sa wërsëg foo nekk dana la fa fekk yus Ndour blen leen ko wax la am amee wu ko Europe Wally Seck ñëw na fi Italie bi émigré delluwaat na teraangam fu mu ko amee Sénégal gee ak ay moromam ki moromam ki moromam moo tax liñ ne ku ne li tabax Sénégal mi ngi Europe waxul dëgg Europe dara nekkatu fi waaw ñun ñii dañuy wut luñ retourné toog man de wax naa ko répété ko su ma amoon lu mu fa dujoo mën a jël ay booy foofu je prends mes kaaka tàkk li ma yor amatuma fi soxla parce que y a rien te pourtant yàgg nañ fi. def nañ lu nekk bis naa leen nett li sama parcours man sama jaar-jaar ngeen xam ne du aksi rek am waaw te ba léegi millions yooyu nekk guñ fi lu mooy suturaal mi parce que dégg naa làkk ba am naa fay connaissance et tout mais façon job bu nekk inventé naa ko pour mën a mën ci génn quoi voilà ba tout dernièrement c'est dix douze quinze ans yi nga am liggéey bu fix mais bu ma ko amee man am na sama juróom fukki moroom yoo xam ñoo ngi ci miir yi la ñuy toog amuñu ko voilà wala bu ñu liggéeyee tey une semaine bala ñu koy defat feek ñetti weer loolu yow doo ci am sax loo yónnee sa famille loo dundee fii rek déjà su quelque chose bu leen dégg ñu ne la nit ki day gagner un million par par weer wala un million deux cent un million trois cent nga dégg ko mais un million trois cent yu versé ko ci euro bi nga xool ñaata ngay fay kër gi cinq cent euros lay jar booy fayu mille cinq cent euros kër gi ngay dëkk rek di ci fay cinq cent euros courant ñëwul ndox ñëwul gaz ñëwul ah essence oto ñëwul li ngay yónnee Sénégal ñëwul boo ko diviser un million boobu jàppal ne bu doon CFA la cinquante mille moo lay dese pour nga àgg weer wala di ñëw bu dee da ko dese voilà pour te dire donc am un million fii moo am deux cent mille francs Sénégal ñoo yem képp mais boo déggee ñun la un million laay gagné nga naan waaye ñu bari sax duñ ko gëm mais c'est vrai mais dangay xool li ngay frais waaw foofu la mbir mi nekk. mais du da ñëw fii deux mois après nga dem tabax étage ak nang dafa yomb sinon ñu ñu yor yor nañ ay fukki kat kat gars yi ñëw di leen gondi fii dañu fekk oto jàmbur bu rafet ah, ñoo xam ne ñoom ca waa yow tilim la ñuy def salte dagg ay tamaate bu ñu gisee oto bu rafet ñëw photo di leen ko yónnee leen ko won xool bii bii laay bëgg a jënd bii na may xool nag ma informé wul nan la ñuy def ba mu ñëw Sénégal fenn kese oto jàmbur mu photo la voilà yooyu nag lañu war a bàyyi ñi ne ci Europe bi aussi di ko won xale yi lañ leen di won image réelle yi mu ngi mel ne Afrique bu fii bu ñu lay won Afrique lu ñu lay won ay néegu ñax ay dégrade ay xale yoo xam ñu ngi xiif bay dee duñ la won dëkk bu rafet moo tax tubaab yu bari yaakaar ñu ci garab yi lañ dëkk ba léegi parce que image yi leen di won mooy loolu image yi ñuy jële fii di ko won nag Afrique mooy la beauté France Paris di la won Rome Duomo bi lépp set oto yu rafet yi tout nga ne fii daal bu ma nee cëpp tekki naa Sénégal gii bu ma fi doon am quatre cent mille sax zéro da ngay gis ku dajale quatre million pour dugg ci gaal yooyu wala affaire yi quatre millions boo amee jom am liggéey mën mën a liggéey te gëm li ngay def billaahi da nga ci teg di Sénégal googu mais lu tax côté boobu du leen kenn won di leen won rek ah richesse boo xam ne yéen ñi leen koy won amu leen ko nañ xalaat ci loolu te yaay yi ñu bàyyi seen doom yi ñuy xas amoo jom sa morom mii gis nga moo fi tabax lii tekki woo defoo lii dem ba xale bi dag dépressionné par force buy jël gaal ga sax du ko tey parce que sonn na lam amaku si néew di ñëw di ci joxe dépense sax ñu xeeb ko déedéet da nga war a ma tabaxal étage danga war a gaare fii 4 x danga war a yóbbu màkka au nom de quoi lu jot dana yomb man sama yaay lu mu doon wax bis bu ma déggee ñu ne def nga lu ñaaw ba dugg ab kaso dang mo togn dang gatchel ci senegal lool lay xalaat man luma ko defal mais ma ngay xalat tay bu mu dugun ci ay drogue wala muy dug ci yenn yi pour xaliss bu mako ko wala ay étage ak i 4 4 yu mako defal lolou yep da ko tek fe jaamul yalla dil def lu bax lañ lay yare top ko bul yakam di dara sa aduna lepp lo wara am dang ko am voilà ta sama yaay du mu won setan bu don ci gaal moom doon indi fi man la du mu fi ñew donc il faut maire aussi hein, di may xalé yi jàmm ta xam ne gëm nañu yalla lepp lo xamné ci si am na buñ Wa. bind nañ ko voilà dañ ko am nga nek Sénégal ak nga nek Paris nga nek Amérique yépp nit jogé na Sénégal par force wacc ko fa dem États-Unis wala Europe dellu si waat am dafa delluwaat réewam doo do am nañ ci calculer lo waaw bu ko agsi fi tedd rek <laughs> ñu bare billaay bu ñu leen nettali seen histoire fii ah da ngeen suur Europe suur Amérique kon nag foofu la ñuy yem euh, tey jii euh, ah, balaa booba nañ fàttaliku aussi ci immigration bi. li ma loo wax c'est très important parce que dégguma ko ci benn plateau te dama bëgg aussi ci plateau yi ñuy rappeler loolu guinéen ya nekk Sénégal malien ya ivoirien ya nigérien ya nga xam dañoo bàyyi seen réew ñëwuñu Europe demuñu Amérique Sénégal lañ ñëw émigré yi Sénégal googu ñu ko añ doo reer ñom nan lañuy def ba ñew fofu seen koko yooyu ñuy jaay ak fruits ndox ma ñuy jaay ci mbedd du n'importe quoi taxna bo ba seen réew am nañ seen 4 4 am seen ay koy ci Sénégal goo ngeen di xeet nan dara du matin au soir il faut réfléchir sur ça aussi lu tax ñii ñu Europe jëluñu gal yi rey seen bop lu tax ñu Sénégal gi nga dara ne ñu ngi jël ay di posez-vous cette question Voilà leen génnee sa kër boo dajeek ab pël euh, guinéen hein, wala malien

ok xaalim Gueye TV boo ko bindul woon def ko activer cloche bi bës ko te xam ne xaa fu la teg fii la respect bi du fi jógee waaw dëgg gi moom dañ koy wax mu neex kum naqari taalal sa gaz bu mu tàng jër nga toog ci géré wuñu la pees